mbokk yi fa waxoon naa sànq ne am na xeetu kiñaan boo xam ne dagan na fa huwa al musamma bil ghibta moom lañuy ñuy tuddee ñeetaate lan mooy ñeetaate ñeetaate mooy nga gis sa mbokk ci melo bu rafet nga gis sa mbokk ci ay jikko yu rafet nga gis sa mbokk fa tabaarakallaahu ci xaal bu rafet nga mébét nga ñaan yàlla mel ni moom waaye nag yéene woo ko dara wàññeeku ca namu mu mel yow daal bëgg nga mel ni comme moom ni mu mel ànd ak nag moom it na mu mel ñaanoo yàlla dara wàññeeku ca loola dagan na moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis nee na ñaar dong ñoo jarañee ci àdduna ñaari nit kese ñoo jarañee ci àdduna ñu ne yonent bi ñaar ñooñu kan kan la mu ne góor goo xam ne wala waajoo xam ne muy jigéen muy góor borom bi xamal na ko alquranul karim bu guddi jotee muy jóg di naafila ci alquran jooju waaw di naafila guddi ak bëccëg di jëfe la mu jàng ak kan yaa rasulallahi mu ne ak waay joo xam ne muy góor muy jigéen borom bi jox na ko alal mu def alal ja fam ko war a def di ca jaamu yàlla di ca tabax ay jàkka di ca dimbali way néew ji doole yi yonent bi nee na ñaar ñi dong ñaar ñi kese ñoo jarañee koo xam ne yàlla xamal na ko alquranul karim mu di ko jëfe ak koo xam ne borom bi jox na ko alal mu def ko fam ko war a def ñaar ñi dong ñoom ñoo jarañee tabarakallah la ghibtata illa fi hatayni ala wajhi al ightibal hada ñaar ñi kese ñoo jarañee fa tabarakallah